waa centre des services fiscaux de Kawak, nous avons été fii chambre de commerce euh, rencontrer les opérateurs économiques pour nous partager avec par rapport à les obligations fiscales comme nous avons senti ça, nous avons salle mission une mission pédagogique qui consiste à éduquer et à inculquer des valeurs Euh, contribuables, notamment le paiement, paiement de l'impôt. Nous avons failli impôt, euh, le fait de payer l'impôt, c'est un acte euh, civil. Donc, nous avons dit que nous avons des opérateurs, nous avons des impôts. tey mu nekk wàllu a bi mu nekk wàllu IR e IS e ak impôt bees bi ñu bi ñu indi nga xam ni c'était en avril deux mille dix deux mille li wax euh, la contribution euh, économique locale sel valeur sel valeur locative sel valeur ajoutée yaakaar naa ni euh, débat bi gis ngeen gis ngeen mu déroulé ça c'est bon am na daal la plus grande sérénité am nañu yaakaar ni aussi buñ fi jógee tamit opérateur économique dinañ gën a farlu xam exactement seen seen obligation fiscale di ko respecté loolu daal tey mooy taw moo nekkoon suñu tànk tey Euh, le centre service bu de Kaolack déplacé wu gis opérateur économique waxtaan ak ñoom seen obligation fiscale yi donc je problème yi maanaam TVA sur le transport euh, je pense que yor na tey ak communication yi ñëpp ñëpp comprendre nañ TVA sur le transport naka lay demee pourquoi ñu koy fay. dañ ko def pour rappeler rek première fois bi ñiitu chef de impôt domaine bi ñëwee Kaolack dañ ko invité woon pour mu dajee képp kuy opérateur économique fii si Kaolack pour mën ko expliquer lan mooy impôt lan ak lan lañ war a fay ak nan lañ koy fayee. bi ñu paree ci inco euh, information boobu dañoo xaar diiru année mu méngoog année exercice euh, fiscal ñun ñu def seen déclaration ba pare déposer seen état financier ñu defaat beneen rencontre pour xool ndax li ñu waxoon daal am nañ ci jéego yoo xam ne opérateur yi def nañ ko si est ce que waa impôt tamit jàpp nañ si donc boo gisee réunion bi tey li ñu njëkkee mooy TVA ci transport te TVA ci transport mooy point bu njëkk bu ñu mësoon euh, bu njëkk a calculé bi njëkkee njëkk invité chef de centre bi donc tey. intervention yu bëri jëm na ci a ci transport mais mën nañu jàngat ne opérateur yu bëri problème bu leen daloon daaw dalu leen ren parce que information bi njëkkoon a joxe la ñu ngi jëmaat tamit ci benn changement benn soppite bu am ci mbirum impôt ñu koy woowee contribution économique locale moom moo remplacé patente opérateur économique yu bëri gisoon ne calcul bi leerul impôt bi lan ak lan la junj lan moo tax ñu koy fay tey tamit boo gisee inspecteurs yi leeral nañ ko bu baax ci seen bureau séance. vraiment maa ngi rafetlu tey suñu jotaay bi nga xam ne waa impôt ñoo nañ ñu ay bu jiitu woon xëy na la ñu daloon daaw du ñu dal ak ñoom. parce que ndaw ñooñu ñu jox ñu benn euh, taxe bu bees mooy TVA sur le transport taaroo ko même TVA sur le transport ñu ko doon fay ndëkk yëguñu ko lam ma loolu ànd ak daawuñ ko déclaré te fekk nak ñu ko ci suñu bilan buñ ko doon préciser suñu comptable mënu maa kon ñu dal dañu dal te lu lépp ñàkkoon waxtaan moo da waxtaan yi vraiment ñu rafetlu ko xam na gis na si njëriñ man fi ma si gën a jiyee njëriñ man en personne man dama gis surtout celle bi mooy mooy euh, mooy kii local bi contribution waa contribution locale bi vraiment patente bu njëkk dañ laa ñëw rek xoolal daal mais léegi vraiment da nga ko ay normes yoo xam ne ku ko ji da xam ne xel lu la teg jaadu na dana si benn locatif la moom ça dépend si taux ne lii du 4000 dañuy ñëw loolu la loolu xam ne ñu ñoo fi ñoom ñu fi pour ñun fi pour ñoom donc je travaille dans la partie ambuleuse vraiment déclaration bi ak exposé yëpp rafet na ñu si gis seen bopp jëlee suñu bopp vraiment ñu sant di leen gërëm ak